Ya Kabib. Habib yow euh, weeru mars bi danga nga koo topp ba ci wiru virus bi ni ko xale yi di waxee ndax yaa ngi wax ba tey ci temu jigéen ñi mën ak yow nag daanaka ñoo bokkoon suñu combat sax sànq muur mi may xaw a tooñ euh, mu ngi noonu ñu ñëw nag euh, ci fa nga xam ne moom mooy CM bu sac mbaaw gune yi ñoom nee nañ dañoo ibbi seen i gët xool ci jigéen ñi ana ñan lañ ci war a génne fësal leen ñu mën leen nekk seen ay référence effectivement fatik ginaaw bu ñu nuyo kep ku yewo ci banlieue bi niñ koy mm-hmm. defé banlieue ci lañ bok banlieue ci lañ bok mm-hmm. voilà ñom euh, ay ndaw lañ mais dañu bëgg am ay way ndax tamit euh, wër bi bo seetee mm-hmm. euh, jigen ñi fess nañ ci waye jamono ji ku xool configuration société bi di nga xamné jigen ñi ñing ci bay seen war ci lolu waral na itam ñom ñu am ben journée bo xamné dañu jog ngir sargal jigen ñi waye itam di ci ut ñi nga xamantene ay référence lañu Abdou Faye def euh, ànd ci ak Asmalik Diop léegi léegi. ñuy wëy di leen sargal ba léegi ci weer wi ñu ne ndongo yi noonee lañu ko defee fii ci CEM Zac bu Mbao jigéen ñi ñoo jël li ni mel ñoom xale yi ne faw rek ñu gën a mën a xamaat ban place la jigéen war a am ci société bi place am doon na loo xamante nit luy am solo la. bi tey jii nii dañoo bëgg sargal jigéen wax njëriñu jigéen ci biir société sénégalaise ak euh, autre part tamit. parce que jigéen mooy mooy yaay jigéen mooy yar jigéen aussi moom mooy euh, mooy moom si la xale war a jàngee ba ba am ay valeurs yoo xamante ne ni fépp fu mu dem ci àdduna du sonn. ndaw dafa war a am royuwaay bu bañee fakkastalu daan tudd nit ñu baax ñi ci réew mi seen yaay nañu tudd si côté yi ay maam jaara Bousso ay maam Fadou Wele moo tax ñu ne nañu dellu ci valeurs yi jàngal ko suñu élèves yi. invité ay femmes leaders. dañ dem ba gis seen bopp ba ëllëg ñu jël leen comme modèle te gis ne ñooñu nekk ci kaw si nguur gi terewul ña ngay garder seen valeur nekk ay mère de famille di joxe bon exemple. waral na itam ñu jël kenn muy jigéen nekk député ca pencum ndawum réew mi ngir mën a roy ci moom. en tant que député boo xam ne moo gën a ndaw xëy na ci ay at ci assemblée nationale ñu ne ko baax na bu yi amee ak activité de citoyenneté yi ngay faral di def yëpp nga ñëw. wax ak xale yi euh, jàjjaat leen motiver waat leen ba ñoom itam ñu xam ne am nañu rôle bu ñu war a jouer ci société bi. di gën a continuer nag di nekk seen wet parce que ñun dañu tàggat ba tey ñu doon lu ñu doon dañu war a passer le flambeau bu ñuy passer le flambeau dañ ko war a joxe ci anam bi gën a rafet. ndaw ñi yemuñu foofu ndax itam ku ci nekk am nga taxawaay goo leen a ci seen dundin waaye itam ci seen wàllum jàngin looloy tax tamit bes bi ñu am ku ñu ko ndayale koo xamante nit ay valeur am na bu baax ci département bu pikin di wax sama njaboot gi nga xam ne tey choisir le corps professoral ànd si maa ngi leen di wax un grand merci di leen ñaax di leen wax ne le seul cadeau bi ngeen ma rendre rek mooy ngeen jàng bu baax ndax euh, yaru rek moo baax góorgóorlu rek moo baax jàng rek moo baax foofu la réew mi tollu ñoom xam fu ñuy taxawee waral na ñu ne faaw rek ñu wuti yoon goo xamante nit daa gaaw waaye itam daa leer ci mag ñi. ci li ñuy xaar suñu yaay yi mooy que ñu jàppale ñu ñu dimbali ñu si lu bëri di ñu di ñu di ñu tàggataat di ñu yedd aussi xamal ñu lan mooy lan mooy njëriñu jigéen partout si que mu nekk si école bi que mu nekk en dehors de l'école. CEM Zac bu Mbao seen journée culturel la ñu amal lile ngir gën a mën a jox gëdd doomu aadama rawatina jigéen ndax itam njëriñ ga mu amal askan wi rawatina société bi nga xamante ni te fii la ne ndax dem te jigéen bokk ci doonut loo xamante ni lu yomb la. ay aywa abi fay ñu sant ko bu baax gërëm ko Modou Fall. waaw comme que nee nga na mbir mi ba ci miiru suy bi ba mu jeex. feetum jigéen ñi xam naa ne dafay ñetti weer wi muy weeru mars. Mhm. tey ji jigéen ñooñee ban rôle la ñu mën a am ci école bi nga xam te ni moo di école Jacques bi ñu njëkk a am ci biir euh, école bi Modou euh, benn système lañ teg mooy système de parrainage dañuy jël xale yu jigéen ñi ñu pareel na leen kenn wala sax ñu ndayale leen comme li ñuy wax. marraine quoi marraine quoi mhm. ñu jox ko. kenn ku jigéen ko xam moom mooy moo koy suivre à tout moment ci biir étude am et aussi tamit di ko réorienter dans la vie loolu itam euh, wane na ne encadrement féminin bi tey euh, jël na bu baax du subi ci ñi nga xam ne ñoo dikk euh, góor ñi euh, ba léegi da ngay gis ne anam bi nga xamante ni te ñoom ñi ngi jéem a essayer passer le flambeau aux jeunes filles ñu xam ne lii nii kat tey euh, jigéen ñi dañu war a nekk ci kaw ngir gën a mën a jëriñ li nga xamante ne moo di askanu wi ndax boo seetee école yi li ñu gënoon nemmeeku moo di la déscolarisation des filles tey loolu la ñuy jéem a éviter ba nga xamante ni te jigéen ñi ëllëg dinañ gën a mën a téye li nga xamante ni te moo di réew mi. leneen lu ci am solo moom moo nekk lan mooy attente gone yi jigéen yooyu nga xam ni ñoo nekk ci CM bu Zac li ñuy gën a xaar bokk na ci ku leen di jàppale ndax tamit euh, xale bu jigéen euh, nekk ndaw te amoo référence xam nañ ne tamit ñu ci bëri seen i euh, waajur lañ nekkal ci kër ga waaye boo jógee sa kër ga dem fa nga xamante nit moo di ca école ba te amoo royuwaay boo moytuwul tey di nga sànk bu baax a baax loolu moom moo waral ñi nga xam ne ñoo di parents d'élèves yi bàyyiwuñu leen benn yoon te école bi chance bi nga xamante nit am nañ ko mooy dañu am lu tollu ci douze surveillantes am lu toll ci deux surveillantes général yoo xamante ni tey ñoom ñuy suivre ñi nga xamante ni ñoo di élèves jigéen

fem phénomène yu bëri mi ngi am fii jigéen ñi nga xamante ne ñi ngi bàyyi école certes c' est waaye tey ñoom bu ñu amul référence amuñu itam ki nga xamante ne moom moo leen di toppatoo boo oytuwul dinañ sànku ci lu gaaw. léegi défi yi nga xamante ni CM Jacques Mbaw lancé na ko surtout yaa ngi wax wàllu déscolarisation ci wàllu woowu. Mhm. Euh, défi yi nga xamante ni te am nañ ko parce que dañu gis ne ñoom ci seen boppam it ci wàllum parité gi war nañ cee sóob seen loxo bu baax a baax ba nga xamante ni te école bi fu ñu ne benn góor dinañ wax benn jigéen ba lépp li nga xamante ni te ñeel na ko tamit ñu koy gën a mën a appliquer euh, beneen tamit bi nga xamante ni te def nañ ko boo seetee euh, l' année dernière école bi dañu ko tëjoon ndax lu ko waraloon mooy dafa taawoon ren lañu ko commencé ibbiwaat ba nga xamante ni te ndaw ñi gis nañ ne sax dañu organiser benn concours boo xam ne ci biir école bi la que jigéen ñi ñoom ñoo jël prix yëpp faat dañu teg 12 prix mm-hmm. jigéen ñi ñoom ñoo raafle lépp mm-hmm. mu doon loo xamante ne kon am na benn travail boo xamante ne te ñoom liggéey nañ ko ci euh, bu baax baax ba ñu mën non am ay góor certes mais gis nga encadrement fafara dafa am solo bu baax a baax ba tax na tamit ni ñu encadré xale yi jigéen ñooñu tey ba ñu mën a am prix cela veut dire que tey réhaussé nañ li nga xamante ne te niveau d' euh, yu élèves yi mm-hmm. ba tey mu permettre leen ñoom ñu mën a en haut du classement hmm? am solo wax na dëgg mois de mars lañ nekk man am yow laa àndal nga a jigéen ñi nga xam ne lépp ci encadrement la encadrement dafa dafa am importance xam nga tey ñun ñun hmm. mais gis nga gis nga encadrement léegi nii mooy euh, li may wax Fatick dafa am solo hmm. boo seetee ñun góor ñi euh, le plus souvent tey bu ñu jógee école li ñuy njëkk def mooy teg bi dem xooli terrain de football bi dem mais xale bu jigéen bi tey ñi ngi xool ñoom nan la ñuy def ba nga xamante ne tey du mën a jaar dem seeti ka nga xamante ni tey dina ko jàddaloo yoon dañuy def le tout ba mu resté ci école bi wala ñu top ko ba ci biir kërëm wo sax ñi nga xamante ñoo di parents mm-hmm. demandé ko ba xam xalé bi accès na ci biir kër sax ngir ñu gën ko mëna taxaw ci jangam motax résultat yi gis nga léegi boo seetee même classe sax faat da ngay xamni xalé mm-hmm. xale yi jigéen ñi moom macha allah ñi ngi gor gor ñi ngi daan doole waaye dess rek lañuy jël foo dem euh, Modou Modou xolal xam nga la lay bañal accident la lay bañal ay deux dañuy jël ak yoy xolal noppi noppi ndax damay bañ nga wax fi njombi boo xam ne après doo xam foo koy expliquer xam nga accident laa mi dafa gaaw nag ñu wax mu naan ay deux bàyyi bàyyi ñu bàyyi voilà Pape nañ vraiment bëgguma xam nga yow sama cousin nga accident làmmiñ bi laa lay bañal léegi nañ bàyyi ah, non yëngaloo ma walaay doom yëngaloo ma dama lay jàppale rek xam naa ni parce foofu nga dugg c'est c'est un terrain glissant da mhm. mën nga fa am accident lamine boo xam ne après li ci na a da nga na a toog far sa xaftaan sax saabu naan baal leen moytu la Aminata Libin day dal sa kaw <laughs> <laughs> moytu ko oui ma en tout cas daal jigen ni góor ni jamba la ñu may jigen ñi jàmbaar la ñu gis nañ ko également ci concours généraux yi am fii chérif concours général à chaque fois su ñëwé day mhm. gis sen taxaway gis leen ci série scientifique yi c'est vrai que euh, ñu ngi leen di gëna encourager euh, di encourager ku ne yëpp ñu jang parce que éducation quand même mhm. euh, chérif mom moy ëllëgu réew bien sûr l'éducation, mënul ñàkk cim réew te fekkante ni investir nañ ci nam waree je pense que le résultat bi dañ koy gis tôt parce que gis nga Sénégal fan yi coow li nga fi dégg loolu lépp tamit li ko waral jafe-jafe ci wàllu éducation rawatina école publique bi dem nañ ba bari na ay jafé jafé yo xamante nit ñang koy bayé di dem ci privé bi. Mm-hmm. mais li am solo moy ko il faut le saluer ci walu mm-hmm. scolarisation des filles quand même am effort yo xamante def nañ ko ci ba nga xamante surtout leur maintien à l'école école. Mm-hmm. na ci résultats yu bax yi ñu koy am bo demee tay ci discipline scientifique yi ah jigéen ñoo fa ëpp. muy concours di examen. ñi ngi ci am ay jéego yu am solo ñom soxna yi et je pense que lolu c'est c'est c' à magnifier maintenant nag il faut que tendance bi ci yëpp parce que njàng góor baax na jigéen baax na ko on dit donc am na jéego yu ñu def ci wàllu scolarisation des filles mais ci góor ñi aussi war nañ cee gën a góorgóorlu xool lan moo tax kon taux d'abandon bi di gën a bari ci góor ñi lan moo tax <laughs> résultat yi baaxatul mhm. su ko defee kon ñi nga xam ñoom ñoo ñoom la dénk système éducatif bi ñu indi mhm. dem ba jafe-jafe nga am wàllu xëy boo problématique la bu rëy gis nga fan yi ñu naan problème xëy yaa fi mais xaw ma employabilité gi kenn xamut donc yooyu yëpp li ko waral mooy mhm. profil yu baax yi buñ ko joxee gone yi ñu jàng loolu moo tax ñu mën a jëriñ seen réew parce que dem nañ ba monde bi fi mu toll mbas mi wan nañu solo si nga xamante ne éducation am na ko la médecine aussi am ko xam-xam am ko et là il faut qu'on insiste sur ça. Machallah, allah Habib pour finir rapidement. pour dire tout est question d'encadrement, encadrement. Mhm. parce que ndaw buy jàng moom bu amul ku ko encadré rek. Mhm. bu moytuwul lajj da ko très bien merci beaucoup euh, Habib. xamante ni. ñu ngi ci seen cause bu baax a baax. macha allah honorable ak euh, ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñuy seetaan honorable député Aïda Mbodj ak képp kuy seetaan euh, info du matin moom moo koy wax. Joe Biden nag navel nii rek <laughs> Alexey moom du Modou Modou dafa Modou tamit ni ni kii toppee marché bi noonu la doon Alexey euh, dem na ba defal ñu ay gëstu ci poison bi ñu defal euh, Alexey ah, Navalny man xam naa doomu russe doomu russe la euh, bu dem Allemagne ñu empoisonné ko fa mm-hmm. et c'est le l'opposant féroce mm-hmm. de de Poutine keroog nag amul Alexey ci Poutine la mujjee wàcc mu ne ko Modou man seen xamatuma ci dara jaajëf Ami Faye ñu daw léegi léegi ci politique ak Moussa Oumarké